fidèles auditeurs de la rajo Rewmi FM nuyu nañu leen ziar nañu leen ñëwaat nañ ci suñu plateau Rewmi People laataan nag ñoo xuus ci li nga xamante ni tey moom la ñu leen indil dañuy jégalu bu baax ndax semaine bi comme ni ngeen ko ni ngeen ko amee ci band annonce bi muy jàll boobaak tey ngeen koy teewlu suñu invité waroon nekk Monaya di rappeuse béninoise sénégalaise sañ war moo waroon tey ci suñu plateau ñu waxtaan ak moom mais finalement dafa am un contretemps mais dem dikk lay doon incha allah semaine prochaine dinañ fi toog ak moom waxtaan ci li nga xamante ni ci la nekk di wàllum rap alors euh, ñu ñëwaat ci ni nga xamante ni noonu lañ ko mënee information people ndax ñun moom on ne reste jamais bredouille on ne reste jamais sans quelque chose à vous dire sans vous faire plaisir yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy teewlu kon ba tey ji kon dañuy ñëwaat ci li nga xamante ni mooy les faits les plus saillants jubum ci wàllum internet bi ci people bi kon ci ñi nga xamante ni daal ñoom la ñuy faral euh, di gën a gis ñu siiw kon li nga xamante ni moo leen ñeel ci wàllum information duñ def luñ dig lu dul digtal leen ko tey jii ci samedi ji yembook ñaar fukki fan ak ñaar kon euh, weerum février atum 2020 laata ñu caa dugg gën caa waxtaan wax gën caa waxtaan ji mooy nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoo koy teewlu lu bees sawa Mimi maa ngi lay ziar bu baax baax di bëggee auditeur ak auditrice su Rewmi FM euh, di bëgg ñuy teewlu émission bi bu baax a baax Rewmi People maa ngi leen di bëgg bu wér a mm-hmm. Euh, waaw comme ni nga ko waxee rek Mounaya moo fi waroon teew di sénégalo béninois mais gis nga ko ñun moom dañuy sabablu rek mais ndogal moom yàllaa koy joxe peut-être am na lu ko gàllankoor ba teewul mais semaine prochaine dinañ ko fi dalal incha allah. artistes yi jaaxal nañ ma de jaaxaluñ la yow. waaw waaw xam nga yi nag moomu ñu seen bopp quoi artiste mën na la dinaa ñëw tey tey tey ba nga jàpp ne day ñëw am leneen lu taxaw. Mm-hmm. mu fomm mu fomm ñëw bi dem ci loolu parce que ñoom nag. dañuy liggéey sa weekend bi la ñuy ëpp temps quoi la am temps pour job. Ah, waaw. mais en tout cas on espère que incha allah semaine prochaine dinañ am privilège toog waxtaan ak moom alors jii ñu ñëw ci li nga xamante ni tey moom moom indi mu indi ñeel fait people les plus saillants sur internet kon ñu tàmbali ci tàmbali kook li nga xamante ni moo ñeel trafic supposé de visa mu ñeel ki nga xamante ni mooy Djidiack Diouf manager de Viviane mu juróon mu jur coow loolu ndax ba tey moom sax mu ngi euh, derrière les barreaux ndax. gar nañ garder nañ ko à vue mais dafa am lu ca yees ndax li nga xamante ni euh, mooy ambassade bu Italie moom nee na jotul ay dossier yu faux euh, te gisuñu plaignant gisuñu itam victime mu mel ni euh, mbir mi kon xamaguñ fu wànnent di mujjee ki gëtam ci wàll wi waaye li ñuy waxtaane ji kon war cee mën a wax mooy wàllum trafic faux visa ñu gis ni manager yi lu bëri dañ leen ciy tudd lan moo waral loolu. waaw waaw parce que ménagères yi rek nga si mën a tudd euh, ñu koy bëgg bu baax a baax jigéen jijak jijak fu ménagère bi yan di ñaan yàlla mu génn xam nga boo gisee lu tax ñu siy tudd ménagères yi parce que yenn dilli yi am bitim réew tey ji mun naa nekk ménager u Mimi comme yow nga nekk artiste ma nekk sa ménagère tey nga war a def tournée bitim réew ma ñëw ni la soo amee say xarit yoo xamante ni pare nañ pour dem bu nu amee 4 million yu lew yu taxaw daar daar mun nañ ñëw bokk ci orchestre bi naka la ñuy bokkee ci orchestre bi ginnaaw bi nga bindee say turu orchestre yow ñoom ñëpp da nga ciy yokk ay cinq personnes yoo xamante ni bokkuñ sax ci orchestre bi da ngay fekk am nga say client ba pare sa cinq clients yooyu boo leen amee da ngay ni kii guitariste la kii tëggkat la eh, kii lii la kii laa léegi boo demee ambassade di déposé da ngay déposer waale loolu léegi ñooñ dañ leen di bàyyi ñu jàll léegi ñooñu bu ñu jàllee après dañuy daw léegi ñooñu bu ñu dawee yow bu ñuy njibbi yow ak sa orchestre bi nga xam ne yéen a tàmm di ànd di tëgg ñooñoo njibbi si léegi cinq yi nga daggaloon defoon leen ay musiciens duñ ñëwaat yooyu la ñuy faral di daanalee ménage eh, ménagères yu bëri parce que ñoom ñooy dox relation boobu noonu ñoom ñoo nekk di ko dox euh, comme lu ci am ñoom lañ ciy jàpp parce que artiste bi yoonam di ci nekk moom boobu mi ngi tal ay répétition mag yenn bagage ci sew yi ménagères yi ñooy jug di def leneen li moo tax buñ ciy daaneel rek ménagères yi la ñuy daaneel Euh, Jijak si loolu noonu la ko gars yi ne si loolu la doon yëngu ba waral ñu téye ko mais bi ko gars yi téye dañ ni ambassade itali bi da ci moom ñoom ñoo def plainte beeg yooyu noonu. mais bu ñu demee ba si biir ambassade bi génn na def benn déclaration nee na moom euh, loolu amul quoi. comme loolu amul. Euh, nan ko bàyyi mu njibbi këram quoi. nan ko bàyyi waaw. parce que loolu peut-être dañu yab Jijak rek mais artistes yu ko fi yu gën a mag Viviane ku si mel ni Youssou Ndour. da koy def day yóbbu pi ay centaines de personnes. Bercy dans mun na am na ñoo xamante ni sax du jaar si yoon Baye Fall loolu lobby la rek. lobby la boo xamante ni dafa am lobbying quoi am mafia. daf ci am daf ci am boo xamante ni mi ngi si biir musique bi fépp la nag quoi fépp la. xam nga mais bu nu jàppee jijak euh, loolu ku mu am nday la ku mu amul nday mais ñi ko fi mag ñi ko fi jiitu def nañ ko fi ba tàyyi quoi sa dara fekku leen ci nañ ko bàyyi mu njibbi këram quoi comme que ambassade Italie bi génn na wax ne moom yoonam nekkul ci affaire yi gisul benn affaire bu tilim ci bagage yi. Mhm. kon nañ ko bàyyi mu njibbi quoi. d'accord alors Djily donc euh, comme ni nga ko waxee mais de toute façon on a ouvert une enquête xëy na yëf yi nañ ko gën a leeral. Euh, fu waay féete ci mbir mi les responsabilités seront situées mais quoi qu'on puisse dire tëj moom fu mu amee. kenn du ci am com contentement kon ñu koy ñaanal moom moomu yàlla teg natt yooyu yëpp mu teggil ko ko ba mu mun a delluwaat ci li nga xamante ni mooy njabootam. fële conférence de presse tamit. xam nga conférence de presse. Euh, boo xamante ni sorti albumu Viviane bi jour bu muy génn ñu fekk leen foofu jàppaleen leen au moins sax. Mhm. ñu bàyyi leen ba. Euh, kii bi jàll mais Viviane que taxawu nga war ci manageram bi sentir nañ ko. dafa am loo xamante ni nag du lu ñuy fësal ci kaw lu ñuy def si suuf la. Mhm. Viviane munul génn di yuuxu ay non non non mais Viviane ku ko ciy sonn ku ciy sonn Viviane la si gën a sonn fop. Mhm. buñ ko laajoon tey un milliard pour mu def ko ci bu ko yoree da koy def pour ñu bàyyi jijak parce que. Mhm. jijak gis nga Viviane ba mu commencé liggéey ak jijak ba léegi. gis nga Viviane bi beneen Viviane la ñu gis. Euh, tey jii mun na ni Viviane Sénégal la woon mais léegi Viviane mun naa ni Afrique yëpp koy xëccoo. Mhm. c'est ak xeetu musique bu bees muy tàmm di def nii. yooyu yëpp euh, direction musicale lu ko soppi jijag la. Mhm. xam euh, xam na fu ko jijag jëlee xam na fu ko jijag yóbbu. Mhm. kon <laughs> gars yi bu ñuy naan ay Viviane est-ce que mi ngi ci kii ñooñ danoo xamul quoi. mi mi tey man ak yow dëkkuñu mais tey bu li dal jijag bu la daloon rek man du ma am jàmm. mun naa bañ a génn ci presse bi di wax mais xamuñu lan laay def quoi. waaw mm-hmm. ah, Viviane mi ngi ciy def lu mu mën incha allah. d'accord on espère que yëf yi incha allah yàlla na ci wis daal ndox mu sedd. alors ji ba tey ñu continuer euh, semaine bi itam am na loo xamante ni actualité la. fin de semaine mu ñeel ki nga xamante ni mooy Pape Alé Niang il est journaliste il est chroniqueur il est même écrivain moom dafa génne woon benn œuvre tuppee ko li nga xamante ni mooy scandale au cours de la République mais moom dafa am information bu ko ñeel parce que apparemment il a fait un accident euh, la dans la nuit du jeudi au vendredi waaye nag euh, li nga xamante ni moo ñuul ci saw ma nee nañu dafa nekkoon en état d'ivresse maanaam àndul ak sagom dafa naanoon ba ñu jël ko euh, yóbbu ko commissariat mais finalement bàyyi nañ ko laaj bi mooy ndax boo demee ba siiw nekk ci yenn yi war nga am yenn comportement yi te it loolu dañ koy faral di gis mais lu ci bëri dañ koy gis ci artistes yi ñu ñemee ñàkk nekk ànd ak seen sago ba pare wala nekk euh, en en conduite est-ce que ça aussi waruñ ko mun a déplorer. waaw euh, maanaam tey artistes yu bëri duñu ay légitimes journalistes yi Euh, journaliste yu mag yi ni dégg si réew mi duñu ay légit men euh, xam bi nga ko déggee waaw information bi man gëwuma ko sax. lu tax. Euh, Pape xaw ma day naan xaw ma naanul mënuma sori mais li ma xam ba xam ko mooy na def attention parce que instant bii nii pexe bu ne dinañ ko def pour jëm ko wàccee parce que Pape Alé day déranger. Mm-hmm. moo tax man balaa may gëm li di wax. moom mu génn a def euh, benn discours. benn déclaration benn déclaration expliqué. ni mu demee mais Pape Alé Niang xam na ni mu mel si réew mi. Mhm. daful kon bay mandi di dawal même bu fekkee dafa mandi gëw ma ni ba mu mandee mi ngi doon dawal quoi gëm naa ni Pape Alé même bu fekkee da koy def këram la koy defee quoi bu mandi bi reesee. Mhm. mu génn dox ay soxlaam parce que nit ñi sopp nañ ko sa et puis moom lu muy wax. Mhm. Euh, lu muy yàq état bi ak euh, nu muy taxawee société sénégalaise bi. Eh, gëw ma ni dina màndi di dawal oto quoi. Mhm. koo xamante ni day sensibiliser. nit ñi nan def li nan def li mhm. gëw ma ni kooku dina taxaw tey di màndi di dawal mais en tout cas lu am ba am mooy eh, accident bii nii sax gëw ma ni sax nen la quoi. waaw ñu ngi koy wax parce que xam nga eh, livre am bi kim ci duut baaraam moo mhm. ngi ci république bi. Cheikh Omar Anne nekk actuel ministre de l' enseignement supérieur ñu ngi naan bu xaab bu yi ñoo jàpp waaj na gis dina gis lu ne Pape Alé hmm. position bi mu nekk nii am na ñu ko fi jiitu woon tey ana ñu déggatoo leen hmm. moom bosam day day doog a tàmbali nii rek hmm. dina gis lu ne parce que dafa soobu ci xeex boo xamante ni ñu muy xeexal dan am doole dañ bëri doole doon am puissance bu deful attention fu muy mujjee mooy ndeysaan ku baax la woon ndaanaan la woon jàmbaar la woon anamu ñu ne la gaañu ne 2020 na maytu bu baax a baax état kenn du xeex ak moom waaw. waa ji acca ñu ñëwaat suñu plateau ki nga xamante ni nag jamono yi moom tama ëpp koy buum ah, mu fës lool ci wàllum pipol mooy Soukeyna ah la fille qui était dans la série Nafi te nekkoon itam ci kili bu Ngaaka bi te après coow toppoon ko ci loolu jamono yi nag fës na ci internet bi ndax ak ay vocaux yoo xamante ni partagé na ko ak ay naataangoom yëf ya mujje atterrir ci li nga xamante ni mooy sur la toile ba yëf yi jur coow déjà yow ban commentaire nga ci def ci fii certaines filles ni ñu ñemee exposé li nga xamante ne mooy seen private life ci mbedd mi ñëpp jot ci mani boobu xew léegi pour lan. bëgg buzz. bëgg buzz. gis nga mimi buzz képp ku ko ci topp ëllëg di nga toog rëcc jooy fu kenn nekkul. Mm-hmm. xale yi jigéen ñi dama yaakaar ni ñoom gis nga dafa am benn waa ju nekk ci benn site. Euh, surpreneur sax laa ah? euh, waaw mu tudd coach euh, coach Barma mi ngi def liggéey bu am solo mi ngi def liggéey bu am solo waaw mooy coach mi gars yi di tàmm di sànni xeer rek mooy coach mi moom si seno seno prono parce que waaw même si yenn kilifa yi ndax coach dafa def dinaa ñëw si sukkay na léegi mais damay wax si coach balaa lii di ma rëcc coach mhm. temps yi dafa am ay vidéo ponkal yu mu yor mais dalay bind Facebook non da lay bind yow da lay message sa WhatsApp ni la yor naa sa vidéo dama koy piblier nga ni ko déet bul ko publier nan laay def mu ne la jëmal nga jox hôpital bee ay don liw lii. Mhm. boo ko defee du ma dugal vidéo bi mu def ko. ba bu mujj benn kilifa la ko fi def muy sëñ Bakke Ndiaye. Mhm. moom dem na def don bi. Ah waaw bi ko koo ci ni ko soo defee don bi demal hôpital demal wax ko hôpital sax moom fii la ko wax ci camp bi nii nu mu tuddati euh, camp pénal waaw la ko la ko yónni ni ko demal nga jox leen ay don dem na fa jox leen ay don yóbbu fa xaalis bu bëri. da leen waaw da leen di mais si biir chantage bi chantage du jaamu yàlla. Mm. da def li dimbali ki nga tane. ma bañ a dugal vidéo bi defoo ko. Ah, day fa dafa yor sa vidéo. Euh, vidéo bi waaw est-ce que Kocc moom arrêté nañ ko. waaye mimi Kocc gars yi mënuñu ko jàpp. Mhm. kooku foo Kocc bi lañ jàppoon. Kocc original bi gars yi duñ ko gaaw a jàpp. li nga amee picc. mi ngi mi ngi liggéey ba tey li ma lay wax nii mu ngi si YouTube bi gars yi xam nañ si dara xëy na peut-être information bi dala rëcc. mais sëñ Bakka Ndiaye def na don yi. Euh, ba Kocc ba mu message Kocc sax ba ñoom ñaar ñu waxtaan ba Kocc remercier ko si loolu ni ko vidéo yi nag ma ko dugal. Mhm. xama def na ko ñeneen ak ñeneen ay ponkal loolu liggéey boobu am na solo talab ñu koy rafetlu euh, mais comme genre ñoom sukkay na yi nii euh, ñoom kocca baax si ñoom ak gaaw si yar kum si jàpp ba jël sa vidéo dugal ko la sa photo di nga génn Sénégal dem toog fenn boo dikkaatee da ngay muuru soppeeku dootoo bokkati ci loo boobu. gis nañ déjà am na litige bu mu amoon ci. ak beneen fii bu bokkoon ci même série bi dina fi di di l'autre fàtte naa tur bi euh, je je vais me rappeler voilà mais la question ji li mooy est-ce que boo demee ba am yenn statut yi siiw yenn bases yi war na la non non siiw ñu ah wallahi boo yooyu siiw ñu mimi boo yooyu tojuñu fenn ah, léegi des fois dañuy gis Sénégal gis nga dañuy jël koo xamante ni tekkiwul dara ñu ñu la mm-hmm. rangu xam nga ñu ñëwaat tey su Soukeyna maa ngi seetaan benn vidéo muy xuloog benn xaritam di ko saaga di def yëfu ñàq da yoo xamante ni ay vocal yoo xamante ni sawaay pootum biiru néeg la nga koy jël di ko exposé si mbedd bi mhm. xam nga lii di whatsapp lii di facebook mbedd la guddi ñu toll quoi loo fa def day dem xam nga mhm. defoon na fi benn affaire si bu Ngaaka Blindé bi xam nga sol n'importe quoi gars yi di ko seetaan na ma yaakaar ni booy ñoom xalaatuñ ëllëg quoi bu ñu xalaatoon ëllëg li ñuy def nii duñ ko def jigéenu sénégalais yi danoo rafet danoo taaru mais dañuy jël seen léegi moom seen yaram yi moom bëggatuñ ci dara dara dara léegi ku ci gën a bon lu muy sol nga ni kii ku ci gën a ñeme télé sax da ngay gis ku ciy dem ñu invité la selek nga sol loo xamante ni sa pooj yi si biti lay nekk gars yi di janoog moom léegi ñun góor ñi sax wératul léegi da ngay taseeg pooj dara du doo yëg dara <laughs> sa xoola année yi si ginnaaw année yi si ginnaaw sunu maam yi dangay ngay toog ak ñoom pooj sax buñ la ko wanee sax nga gis sunu maam yi di yëg seen bopp. Mm-hmm. ay réel nigalan woon. mais léegi nii ñun waaye saa waay mimi da ngay toog ak gal sax mu génnee weenam ak yëpp ngay léeb ak léppoon. Mm-hmm. nekk si sa monde bopp naan say café di waxtaan ak moom. Ah, du la saf. loolu ay temps amul woon. Mm-hmm. ay genre sukay ne booy nii nii nii man booy du wax si ñoom sax dañ leen may bës. parce que moom l'information bi nga xamante ne moo concerné parce que quelque jours après dañ dafa dem tee TFM. mais le directeur des programmes a démenti Bouba Ndour nee na aucunement Soukeyna ñëwul TFM tey jii bu atterriroon foofu est-ce que dina la bett. non non non du ma bett parce que euh, TFM télé bu ma respecté la sama tele la. Mm-hmm. Euh, gars yi fa nekk tamit am na ñoo xam ne samay gaañ lañu ñu ma respecté lan mm-hmm. mais bañuñu genre Soukeyna ñoom la wër. Mm-hmm. ku ñeme def buzz. ku ñeme xotteeku ku ñeme lu bon ñoom loolu la wër moo tax ba tey di. bu bu fa demee du ma bett. Hmm. waaw donte buuba génn na wax mais bu fa demee du ma bett. Mm-hmm. en tout cas alors ba tey jii ñu wax ci li nga xamante ni moo ñeel euh, soxna Aïda Diallo ndax moom itam semaine bi marqué na bu baax li nga xamante ni mooy euh, site internet rawatina site yi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllum people ndax moom euh, li nga xamante ne mooy jour Saint Valentin dafa amaloon guddi gu mag tuddee ko li nga xamante ni si mooy bésu cofeel ngir màggal boobu le bëccëg nga xamante ni. wàllu mbëggeel daal lañ cay màggal alors mais finalement loolu dafa jur mer ci ñi nga xamante ni ñooy communauté mouride bi ba murit yu bëri rawatina ñu ay murit ak i daayra yu ne Thiès ah, jóg ne ko daal soxna si yow li nga xamante ni yaa ngi koy def mu ëpp dayo loolu dafa doy maintenant ça ça ça ça quoi ba ki nga xamante ni sax nee nañu mooy Serigne Mountakha Bassirou Mbacké nee nañ il a carrément fermé les portes de Porokhane à à la veuve de Cheikh Béthio Thioune wax ji mooy ndax est-ce que Soxna Aïda Diallo nag il n'est pas temps que mu revenir à la raison topp ndigal li ni ko murit yi bëggee. jamono bi ndeysaan fi mu toll. jigéen ñi ñu si bëri xamatoon fi ñuy teg seen tànk góor ñi naax saay nanu ñuy wutali géej gi ñuy wutali fee parce que moom sëñ bi recevoir na ko recevoiraat ko waxtaan ak moom waxtaanaat ak moom lu mel ni bësu Saint-Valentin amoo loo ciy def lu dul woote ay cant mbëggeel cant mbëggeel yabaate weesuwul loolu sunu diine gi si boppam la gars yi bëgg a jël bëgg ko def diine léeboon ak léppoon mhm. sëriñ Muntaxa mag la wax na femme bi dëgër bopp mu waxaat mu dëgër bopp li ci des mooy taalibe yi ñi nga xamante ni jege nañ ko miin ko nan dem wax ak moom bu bañee nag fi ko sëñ bi tere bu mu fa teg tànkam ndax bu fa tegee tànkam li mu wër te wër dootu ko defati. mais que li sax nekkul danger est que il déggoo lu ma la wax femme bi xam nga la ma la waxoon sànq si pap Alé Niang ni la bu maytuwul thérapie lañ koy wax mais femme bi tamit bu maytuwul en soxna Cheikh Béthio bi. Mm-hmm. yëngaloon na fi ay temps ngay dégg. Mm-hmm. na maytu kilifa yi bu baax a baax te def attention ci boppam. alors ba tey ñu wéy ci li nga xamante ni mooy information people waaye ji li temps yi site info site site site people yi yëngu na de li ko yëngal mooy wàllum jokkalante kàddu diggante ñi nga xamante ne nee nañu borom ñaari tur yi lañ ak ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllum fait divers bokk na ci ndoy baan ak mbaaya mm-hmm. ku siiw kooku. xamoo mbaaya ah, Pape Mbaye. mooy mbaaya. am na beneen tur de. Stéphanie. Stéphanie voilà ci. yow ban jàngat nga ci am. Euh, gis nga Mimi live bi lu ci gën a garaaw mooy amal problème góor jigéen. Mm-hmm. jigéen gis nga boo amee moom problème góor jigéen ngay nekk. am nga nga di problème. góor jigéen ngay nekk yow. Mm-hmm. lu mu xat xat xat dina la def góor jigéen dina indi ay waxam yoo xam ne doo xam preuve yow ku dee naka ngay ku dee ngay naan mooy sa seede. <laughs> déggeen chimère mun na ma seede Ndoye Bane Ndoye Bane di liggéeyal Sénégal nekk benn nit koo xamante nii dafa am respect léppam sensibiliser nit ñi moo ko tax a jóg cause bu noble la nekk di xeex nii mais da ngay gis sax yeneen nit ñi sax dañuy commencé xool gëm li li li mbaay góor jigéen bi wax. parce li muy wax day jub de. góor jigéen a gën a neex làmmiñ ci Sénégal mi mi. tuumaal bëri de bokk na ci ay ñoom saa neex ñeneen ak ñeneen. xam nga est-ce que loolu tam. Euh, nit ñi waruñu def attention ci genre nit yooyu. saa neex mënatuma ko miimal. Eh. dama seetaan benn vidéo États-Unis vidéo bi mi ngi circuler ci YouTube bi mi ngi def buzz muy muy muy wax ak Pape si biir si biir cérémonie bi Mbaye naan ko Pambay jug def daagoom yooyu noonu sol yéreem yoo xamante ni yi bu ma ko soloon tey romb si dëkk bi ñu kirim ma mhm. Pambay si boppam moo jarta séq ak dara ndax làmmiñ bi ñaaw na pour bu yàq la ci une du dara ci moom neex taxaw si jotaay boobu noonu di féliciter Pambay naan ba kenn laal la man Pambay muy saaneex muy ñeneen ak ñeneen man gëwuma leen mhm. gis nga mbaay moomu ñuy wax Stéphanie moom kooku dañ ko war a def xool personne non grata fii Sénégal waaw warutu warutu fi warutu fi teg tànkam. tegatu fi tànkam de moom jàpp na ñàmburam toog. nit ñaa koy tooñ ndax ñoo ko tudd nag ci journal fait divers boobu est-ce que tamit euh, euh, kii buy nelaw di nga ko ruux nañ bàyyi tooñ tamit. gis nga mimi li may wax nii sax man dama see ndax bis bu mbaaye déggee. dina ma xam for force dina ma yooyu lay la man dem ñii ñemewu ma leen mimi parce que ñoom li ñuy wax seen maanaam seen fen day rafet nun koy waaw nun koy tegee day rafet doy baa nag man du ma ni euh, lu mbaay wax du dëgg dëgg la du dëgg mais en tout cas góor jigéen na gaa yi def si ñoom attention mhm. di jégalu si terme bi mais ñooñu moom mënuñu wax lu ma gëm quoi ji wala bokk loolu la ah. Mhm. atia waa ñu wax ci li nga xamante ni moo jëm nag ji. fi mu ne tiital nañ ñëpp mooy affaire sect yeeg ñi nga xamante ni dañuy jóg naan maay diw maay diw am na ñu fi taxaw sax naan maay yonent yonent moo ma yónni. Mhm. tiitalu la yow. temps yi looloo xew. ñëpp toog di leen seetaan am na benn femme. Zeyda Zama. bu njëkk a génn. Mhm. ne moom yónnante yàlla la. fii tey képp kuy dox ci suuf rek yónnante nga. yónnante. mooy ko waaw mooy ku ñu yónnee da ngay ñëw dox da ngay ñëw dox sa mission après nga dem. Mm-hmm. mais ñoom dañoo exagéré maanaam tey ñoom dañuy taxaw taxawaay bi nga xamante ni moom la sallallahu alayhi wa sallam taxawe woon ñu ñoom fa lañ taxaw. Mm-hmm. Mm-hmm. yow nga bëggee sa life ba doyal di bëggee ay tubaab amoon jëkkër tas sa say tas tourné dem fu la neex ànd ak ay sect tourné ñëw euh, jël ay sikaru laayan ñëw na yow yonent bi ñëw na yow yonent nga yàllaa la yónni da nga ñëw pour missionner. Mm-hmm. léegi ñun lenn rek lañ koy ñaan Sénégal metti na lool sa yonent du dëkk dëkk bu metti mm-hmm. sa yonent du dëkk du dëkk yonent du ñaaw mm-hmm. xam nga yonent foo ko xoolee da ngay xam ni kii du moroomu ñii te Zeyda Zaman ñi ko fi dàq bëri na donte nag rafet na njool na sigg na mën na jigéen mais yonent bu jigéen fu mu am en tout cas doy na waar mais ji beneen waaye tamit bu fël bu dëkk Tëngéej moom it nee na yonent la dem na seeti ñoom Aliou Sall ñoom ñëpp mais gars dafa mel ni xoromaluñ ko ma wax paa bi di jooy lan lay jooy yonent dina ñaaw gis nga kooku nu mu ñaawee mimi bàyyi jaaw non yonent du ñaaw gis nga yàpp yàlla weesuwut yow nga tëllee fële ne yow yonente nga mhm. yombal baatu yonent euh, mais qu'est-ce qui passe dans nos sociétés ji li am na tam beneen phénomène boo xamante ni ñu ngi koy waxtaanee ñu ngi koy laam-laamee mooy wallu sect yi que Sénégal léegi dafa bëri sect am na ay enseignants chercheurs yu naan sax am na lu mat cent six sectes gëm nga ko. est que ëpp ko. ah waaw maam Abdou rek daan def ay waxtaan année 97 96 daan na wax ci sect yi mais bàyyiwuñ ci woon xel maam Abdou Hadis. Mhm. Euh, radiyallahu anhu yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana paa bu baaxoo woon noonu. Mhm. moom yii nii bu daan am day jug wax ci. Mhm. mais gis nga tey gaa yi ñu ngi fooyee suñ société bi ñu ngi fooyee suñ dëkk bi ñu ngi fooyee diine ji ñu ngi fooyee lislaam bi ñu ngi toog di seetaan te tey mimi leer na yàlla leer yàlla tey koo fi tuddoon tey sëriñam tey bu ma tëlloon rek ne man maay sëriñ Touba. Mhm. wala ma tëll ne man maay alaaji Malick wala maay Baye Niass wala maay bu Kunta Ndiassane mhm. dootuma ko defati façon saaga bu ne dinaa ko dégg kilifa bu ne dina génn def discours mais ku tedd ki la gaay di di di di di manque de respect ñun ñëpp ñu toog mm-hmm. mais nan tuug wax si lii mu jeex benn yoon affaire yonent yi secte yi moom euh, bëri na bëri waaye goo xamante ni boo ko doon lim doo fi jóge mm-hmm. parce que tey ji koo fi gis rek am na nag ñoom ñoo xam ni seen xaalis dañ ko liggéey da leen lew doom mm-hmm. mais am na ñoo xam ni seen xaalis da ngay xool kii xam ni liggéeyu ko quoi parce que du benn coono booy gis yaram bi quoi da nga xam ni kii lu mu amee xaalis am na leneen loo xamante ni ko takk ay liggéey quoi ak ay jàng quoi mënu ko may lu mu am nii da ngay nekk ak nit mimi mm-hmm. mu woole si benn job yow nga ni ko non instant bi maa ngi job même pas un an deux ans mu tabax ay këram jënd kaat kaatam di dawal mm-hmm. maanaam sama benn ay boo yoo xamante ni bokk nañ si benn affaire xaw ma ñu ne da ngay nekk millionnaire fat fat jàppal baayal pour ma ñëw adhéré mais pour ma adhéré damay jox ay quatre cent mille mm-hmm. ko bëgg a def millionnaire loo koy laajee quatre cent mille ah, mais sama booy ñi ngi ciy gis seen bopp. lu leer la booy. fii bëri nañ fi artistes yu ñu fi tuumaal te bëri nga ci ay gaan yow. artistes yu mag yi si bëri ay si looyoo la nekk artistes yu mag yi bëri. invité nañ fi artiste ñuy bëri di lam-laamee woo mais bon. dañ koy weddi mais est-ce que tey ji sax buñ ci nekkoon dinañ ko nangoo nangoo affirmer. man mii di wax ak yow bu ma ci nekkoon boo ma ko laajee dama ciy weddi te boo ma boo ma boo ma koy weddi te boo ma ci wax loo damay wax dal seen kaw. mais au fond xam naa ni man maa ngi si biir bu ma ci nekkoon ba <laughs> ci nekkoon laa nay leer rek non man moom ay secte yooyu yàlla daf ma dimbali ba man daa am loo xam ne dafa jiitu si man. Mm-hmm. muy yàlla. Mm-hmm. waaw bu fekkoon jiituwul si man moom dama taseeg benn wasila bu ma dimbali. Mm-hmm. koo xamante ni moom dalay xamal lu dàq loolu quoi. mun nga bañ a am xaalis nag wala loo am yaa liggéey mais di nga di nga xam loo xamante ni moo dàq ñoom luñ topp. instant bi laaj bi boo ci nekkee jiital xaalis rek moo lay yóbbu moo lay poussé si nga dem nekk si ay bërëb yooyu noonu euh, muy formation yeeg wala yeneen détails ay ñoom Zeyna Zaman seen loo yooyu ñu bokk. pourtant ñi ngi récupéré ay jigéen yu bëri ñi nga xamante ni duñ la yàqal dara sa diine. dañuy naan la mun nga julli mun nga woor. mais teewul fexeel ba réunion na ngay teew fexeel ba activités yi na ngay teew fexeel ba lu ñuy def na ngay teew. Mhm. xuural baat yomb na sénégalais moo neex ñëw xuural baat wax ñaari moo damm say arab yàq ko ñëw xuural baat gaa yi ne ndaanan baa ngi nii. Mm. xam nga nan moytu quoi. nañ moytu de waa ji euh, instant yi nag euh, wàllu rab ak euh, ci sphère boobu noonu lan moo fa bees. waa hip bi lamay seen daga daan wax sama grand lamay da daan wax naan hip hop bi bëri na ay lobbying. Mm-hmm. mais gars yi dañ ko doon weddi mais fur et à ñuy dem dangay xam ne lii lamay seen doon wax dëgg la quoi dëgg la. Mm-hmm. waaw am na ci. mais nag bëriwu ci mais am na ci. ci mbalax bi la ëppee mais am na ci hip hop bi euh, loo ma laajaat ci hip bi. Euh, jamono yi kan moo def buzz. ah daan def buzz. kan la. DIP di dund gis. waaw mi ngi waajal album moog Viviane. ginnaaw Viviane ah génnee album waaw beneen level. moog Dip ñi ngi waajal album boo xam ne ñoom ñaar ñoo koy def xam nga lu Brick ñoom it euh, def nañ benn son ñoom ak Bass Thioung bi mi ngi. Euh, mi ngi mi ngi si tendance YouTube bi mm. gars yi ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax euh, boo xoolee yan am na ay booy génne album tamit ay booy underground. Mm. yoo xam ne bu ma la tuddaloon seen tur tamit ak may laaj ñi ñan la. Mm-hmm. Euh, sa émission bi réew mi people la ci affaire people la ñuy doon nan bàyyi ba ñoom ñu def people ñu soog leen annoncé fii. Mm-hmm. ñuy def people lañ fi annoncé ngaa ko mi ngi waajal double album am. ñuy def ah. ñu nekk si si si game boobu noonu. Uh-huh. la ñuy wax seen i wax quoi ngaa ko mi ngi waajal double album. instant uh-huh. bi mi ngi kaaw di ko liggéey. mais temps ye joxe góon nga fi benn information am ñu koy laam-laamee mais borom génn na confirmer ko de ki nga xamante ni mooy Edmo moom nee na réellement il a marié Echou euh, maanaam Esther Ndiaye euh, yow sa gaañ la déggante woo leen. non non déggante wuñ ci. man mais, mais il l'a confirmé. da am na waaw parce que man information bi fi ma ko yëgee ki ma ko ki ma ko wax man. bi ma koy wax yàgg na. moo tax keroog bi may toog si réew mi people di ko wax après bi ñu jàllee gars yi dañ doon wax non lii mariage la lii kii lii clip la lii kilib la après maa ngi jot ay wax ay waay sa waay gaan affaire yi nay leer waay buy jàll sa jour bu ma koy jàllale maa ngi la ko doon wax mm-hmm. naan la mimi nga ni ma waaw ma ni la lii ma la wax nii lu leer naa ñi la mm-hmm. waxantuwuma a lu leer la yaa ngi doon insister sax si loolu naan ma est-ce c'est sûr ma ne la non lu leer la. c'est am na fu ma ko jëlee fu ma jëlee wóor na. Mhm. fa taxawaat ba tey boo gisee boobu ba léegi waxaatuma ci dama doon xaar suite bi. Mhm. Mhm. c'est ça parce que ñëw na ci concert u Mabo bi parce que Mabo tam ñoom ñu ngi woon semaine passée fi nga xamante ne mooy Grand Théâtre ah. léegi bu baax ñoom it Mabo c'est ça ci la euh, waa site bu tudd bët7.com interpellé ko laaj ko ci wàllu wi mu effectivement confirmé que ni maintenant ils sont mariés ñu leen di ñaanal beaucoup de bonheur et plein d'enfants incha allah dans leur foyer keneen nga xamante ni tam takk na soxna te takk gi nga xamante ni mooy euh, rakk ci Queen Biz mooy ara ara bu euh, Akhlou Brick Paradise alors ñu leen di souhaiter aussi beaucoup de bonheur. waaw ñu ngi leen di souhaiter heureux ménage wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, booy bi mi ngi nekkoon ci benn télé. Mhm. Euh, DTV mu jiwmul xaw ma DTV waaw. Mhm. fa la doon joobee ay temps après euh, from Mbour la femme bi tamit. Mhm. rakk Queen Biz la. moo tax boo xoolee Queen ak Aada dañ yàgg a nekk ay gaayen du tey. ñu peut-être ñu bëri xamuñu ko woon mais ay gaayen la woon bëri na ay sànni Queen sax yoo xamante Euh, aara moo koy bind. c'est ça léegi gel bi moom di Mama Sita Mama cita donc la tudd mais mu mel ni jamono yi ci wàllu people bi tam y a beaucoup de mariage ndax ki nga xamante ni mooy euh, bébé si. BBC nekk nekkoon ci li nga xamante ni mooy série wiiri wiiri te mu jënteel gi mu joué ci li nga xamante ni tam mooy euh, Mœurs moom elle est devenue Madame Ndiaye elle s'est mariée la semaine passée ah jili kon. donc euh, yooyu lañ fi indi woon comme information people mais laata ñoo tàggoo ñu jox leen itam euh, benn euh, not nécrologique bi les information ñoo ngi ko jëlee ba Togo ndax ñoom nag seen artiste rappeur boo xamante ni façon na fa loolu ñu daan ko woowee sax le roi du R&B Togo lépp moo wàcc liggéey turam mooy Omar Bi est-ce que xamoon nga ko. Omar Bi waaw xaw ma ko en tant comme ni ma la xamee non non. Mhm. musuma ko gis tamit. mais xam nga artiste mën nga ko xam a travers lu muy def si leen ko xamee. tey suba dama yeewu gis awa di pub kii ko quoi def si publication di wax ci moom. si laa xamee ni kon information bi dëgg la quoi parce que awa di moom miinante na ñoom. moom it bu dee jullit la ñu ngi koy siggil ndigaale bu baax a baax bu dul di jullit tamit ñu ngi koy ñaanal. loolu la lan loolu daal lañ si mën a wax. mënuñu si xuus en tout cas ndaanaan la woon. Youssou Ndour ñoom du seen Youssou Ndour sax mun naa ni mooy seen euh, seen Thione Seck seen coon sekk la fa. wàllu rap la doon def. waaw bu fekkee wàllu rap la mën na ni moom mooy seen euh, mën na fa nekk tamit seen benn légende awadi. nee nañu roi du waa dafa yomb roi du R&B mi mi. fal ko nit dafa yomb. Euh, am na benn gaan bu fa nekk boo xamante ni moom waxuma la roi du R&B mais dafa am respect foofu am respect Sénégal am respect dëkk yëpp xam nga. <laughs> Euh, King Samon Mhm. Euh, respect ci moom xam nga moom it bi ngi def lu naaj foofu kooku sax la ni moom mooy Youssou foofu. Mhm. xam nga ñu daal bu fekkee mooy roi arène bi tamit yàlla ko yàlla yërëm. d'accord xaaral ko àjjana. kon Omar bi moom mi nga xamante ni moo doon réclamé wu le euh, roi du arène bi du Togo kon euh, dafa décédé. ñu koy. am na tamit am na tamit benn xew-xew bu am boo xam ne comme que ci affaire dee la nekk. Mm-hmm. Euh, mooy nu mu tuddati booy Sikori yi. Mm-hmm. booy Sikori mbër la woon. dëkk cité millionnaire jot na sax ay combat arène euh, mm-hmm. jot na siiw tamit nekk mbëru Grand Yoff moom it dafa décédé ñu ngi koy jaale waa Grand Yoff yëpp. d' accord kon ñi nga xamante ni ñëpp ñoo wuy ji seen borom à travers euh, ma voix et toute l' équipe de l' émission Rewmi People ñu ngi leen di ñaanal yàlla xare leen àjjana wala fa suuf si seen kaw leeral li nga xamante ne moo di seen bàmmeel kon amis auditeurs c' est sûr donc ces informations très tristes ci la ñuy quitté ñu dem ba beneen yoon ñëwaat fi incha allah toog fi ak beneen star on espère que vous avez kiffé l' émission Euh, de ce samedi ji alors euh, ñu dem ba beneen yoo ñu dikkaat incha allah. respect si ñëpp. sama gars yi ba lundi incha allah Galsen Power samedi prochain ngeen amaat seen émission People jaajëf. D'accord sama binôme bi alors amis auditeurs merci beaucoup c'était un grand plaisir de vous servir cet après-midi Inch'Allah samedi ak beneen star restez avec nous avec nos programmes les donc de la radio Rewmi FM les ondes du bonheur Très bon week-end chez vous et merci de l'écoute.